damay njëkkalaat a firnde bu ma amee firnde yi ma soxla yépp ma jàllale information bi kàddu yi may indi nag dafa baax pour sénégalais yi jël ko ñu gànnaayoo ko ñu préparer ko parce que boo leen liiree titre bi c'est bien titré le général Cheikh Sène promet d'en finir avec le président Ousmane Sonko te comme ni ma leen koy waxee toujours ñoom ci seen biir ay ndaje day am toujours ay patriotes kàddu yi ñu mujjee jot léegi le général Cheikh Sène a promis mu ne soit ñaari affaire ñooy am Ousmane Sonko dee ñu taxañ ko jox ko ay mbokkam wala ñoom ñu empoisonné ko bàyyi ko mu génn ci prison bi ñibbi këram waaye njeexin talam moom mooy mu faatu li tax man may alerte nii nag kilifa gi ma ko wax daf ma ne non seulement alerteel waaye il faut ñoom ñu xam pas-pasu sénégalais yi jëmale ko ci président Ousmane Sonko damay waxtaan nag ak sénégalais bi ki yaakaar ne yaa ngi toog sa kër ah jàpp nañu Sonko jeex na problème bi xaala gasi yi c'est fini sénégalais boobu laay waxal Macky Sall mi ngi nas loo xam ne ci histoire Sénégal masagu faa am te man Ousmane Tounkara maa ngi leen di promettre ne bis bu Macky Sall dof dof jàpp na Ousmane Sonko jàmm amul Sénégal te jàmm du am Sénégal tant que Ousmane Sonko ñibbiwul këram Macky Sall démissionné jàmm du am Sénégal loolu ñun promettre nañ leen ko xam nañ ne nag ay dof ngeen ndax yéen ay picc yu rep ngeen ku leen sànni dugub sax ngeen cof ko moo leen dal ci Juan Branco mii ndax boo leen amoon tuuti xalaat waroon ngeen xam ne laal Juan Branco du idée ci yéen boo leen amoon tuuti xam-xam waroon ngeen xam ne laal Ousmane Sonko du xalaat bu baax waaye billahi wallahi tallaahi sama bakkan bii laa ko teg ma ma ne leen nag man maay doon premier martyr buy génn àddina ginnaaw boo leen jëlee bakkanu Ousmane Sonko ndax man xam naa li may def loolu moom jegu la promet ndax kenn du leen waxati ñun duñ leen waxati li ñuy def jaratu ko je vous promets xam nga yéen da ngeen wër rek ay saccage ngeen gis à travers le monde bu boobaa nag ay nit ngeen di gis ñuy génn àddina comme ay melentaan xam nga ay saccage ngeen gis ak ay attaqué fii attaqué fële bis bakkanu Ousmane Sonko bis bu ko dara rombee gis nga Ousmane Sonko bu génnee wér gu yaramam na dee sax at ginnaaw booba billahi wallahi tallahi yéen ak seen famille yëpp seen bakkan a ngi ci xottu gerte boo leen nekkee bitim réew nag mu rawate ko ma wax leen ko bàyyi leen loolu xel def leen lu leen neex nag lu leen saf def leen ko mais billahi wallahi tallahi alazim waat naa ko ci yàlla mi ma sàkk te xam naa ne patriote yi li ma santiir lañu ñu sentir li ma gëm lañu gëm te li may promettre nii moom la patriote yi di def waxoon nañ leen ne Ousmane Sonko pataas bu tàng la jël ko yomb na waaye foo koy logee wala sàcc ndënd yomb na sàcc ndënd yomb na waaye fan nga koy tëggee fan ngay tëggee ndënd mi mooy sa problème ñu ngi leen di avertir ñu ngi leen di dànkaaf di leen wax delloo siwaat leen seen xel delloo siwaat leen seen delloo siwaat leen seen xel xawma kan moo leen di conseiller ak kan moo leen di nax xale sénégalais yi ma gis boo leen xoolee li xew ci àdduna bi di ngeen xam ne on est déterminé ku fi jël bakkan nag Sénégal deret bi dana walangaan ñu ngi leen koy wax boo leen fi jëlee bakkan di ngeen créer guerre civile ci réew mi parce que boo leen yaakaaree ne ah dee na vraiment dafa xaru waaw dafa grève yéen ko jàpp boo leen toju leen seen bajo cottu ndeem doomu xaraam yi jël président tribunal boo xam ne yaay ji dafa biiral ndeyam muy Maham Diallo baayam daf ko biiral doomu biiral la doomu saram ndee mu sàccu pël fuuta xaraamata njaay boobu ngeen jël ko jëlee ko Ziguinchor amul ngor ngeen jënd ngorab ne ko ñëwal taxañ Ousmane Sonko nga pamti pamte ko def leen lu leen neex ñun duñu leen avertir waaye gis ngeen à travers le monde on a laissé nos empreintes bàyyi nañu suñu ay mandarga Ousmane Sonko bu dee seen loxo maa la wax lii de man Ousmane Tounkara bu leen jàpp samay wax nag guerre civile mooy am Sénégal ñun guerre civile la ñuy woote bu boobaa réew mi dana takk ba jeex takk te doo leen ko te doo leen ci man dara ku rombati ñu dóor ko bal ku rombati ñu rey ku ñu xam ci yéen ñu taal seen kër yi rey leen rey seen ndey yi rey seen bàyyi bàyyi leen loolu xel boo leen dof dofloo ba yaakaar ne président Ousmane Sonko dinañ ko rey waaw dara du ci am voilà il est voilà il est mort on va vous tuer e tuer vos famille dama ko wax ci français. président Ousmane Sonko boo leen jëlee bakkanam dinañ leen rey rey seeni ay njaboot gis nga ñun gatsa gatsa la ñu woote bàyyi leen loolu xel dof dof leen ngeen yóbbu ko hôpital perfusé leen ko dee sax bu leen neexee général seen mi ngi nii kii mooy général Sène moom mooy nouveau général renseignement généraux yi kii la moom mi ngi nii kii mooy général Sène moom mooy nouveau Le général Cheikh Sène, nouveau patron de la délégation général au renseignement national kii la kii mooy général Sène kii la Macky Sall indi léegi lañu amal réunion bi ñoom xam nañu li may wax réunion bi ñu amal léegi lañ ko amal dañu amal réunion bi rek kenn ci ñoom woo ma mu ne ma Tunkara dama leen di avertir parce que man bokkuma ci tay bokkuma ci ëllëg pour ngeen xam ñu ngi lal ñu ngi nas seeni ay pexe nee nañu waaw Sonko dinañ ko rey ci nii walla ci naa suwaat ñu assassiné ko bàyyi ko mu dee ñu ne voilà dafa doon xaru moo rey boppam wala nee nañu beneen cas bi mooy ñu posone ko bàyyi ko mu ñibbi këram mu dee dañ leen di wax rek ngeen indiwaat seen xel ngeen xamaat on parle au sénégalais gat sa gat la ñu woote ngeen dem xeex ba la libération finale du président Ousmane Sonko seen àq ak seen yelleef président Ousmane Sonko nag boo leen jëlee ba xam leen ne yéen seeni njaboot ak seeni xame yéen ñëpp seen bakkat mi ngi ci biir xottu gerte loolu rek laa am lu ma leen wax seen yéen seeni employé seeni xame seeni njaboot yéen ñëpp seen bakkan a ngi ci xottu gerte xanaa nag doo leen mën a yéen ñëpp da ngeen di dox ci biir weñ ngeen di dox weñ yu ñu castré yoo xam ne ku Dakar seen ndey du ko dugg parce que on va aller à la chasse à l'homme man maa koy tàmbali man ak sama dëkkuwaay ma wax leen ko léegi ngeen xam ko pour ngeen xam je serai le premier martyr président Ousmane Sonko bu dee keroog bu dee rek jaale leen ma man pare leen ngeen jaale samay mbokk la lendemain du ma dem man dong de dinaa katt seen ndey yóbbaale leen yéen ñëpp wa salaamu aleykum wa rahmatullah wa barakatu